wasare ànd ci ak lata bobu nak yene kay bi di sun lamb ci xëtam gu njëkk wax ne ki nga xam ne moy donc combat Balla Gaye 2 ak site Baye Ndiaye nak mom nee 150 millions du ko fay Siteu Siteu nak mom day laaj lol nee buñ ko fayé ba 130 dal mu dal di bëre pendant ça aussi face à face bu metti diggante Diène kayré ak Zarko la won ki nak Sa Thiès le 5 mai la wara am yene kay bi di record ñëw ne duel Sadio Habib Diallo pour le carré jëm ci nga xam ne nag di donc euh, match yi wara am King Cup hein donc ñu war fa ci demi-finale yi donc ñoom ñaar match bu nar neex lay doon wax également ci góor gi si Dieng bi nga xam mom donc ganna bu mu carrière internationale am donc dafa intégrer staff bu sports ki nak di Lamine Camara ak Amara Diouf sur les traces de Pape Matar sar meilleur jeune joueur hein, africain ñom ñaar ñokay koy daal di xëccoo ki nga xam moy mooy Diouf lu meunti doon dal duguna déjà dans les annales du football parce que à 14 ans ngay stade bi Lamine Camara également gagné CAN bi U20 ak également CHAN ñom def na li ñu war suñu pendant ce temps également suñu jigen ñi tay lañuy jouer joué hein, ah waxtu ñaari waxtu ci ngone une toftal fanweeri simili ñom ak Sénégal Cameroun lay doona ah. donc ci coupe du monde bu handball ñoo di ñaan nak ndam bu rëy rëy pendant ce temps nag ah, ki moy Saf Degé <laughs> Saf Degé ngi ni Saf Degé nag gars mom nak nag actuellement objectif bu Sénégal mom la bëgg moy jël coupe du monde en ah, beach soccer ba également nek meilleur gardien du monde parce que 2007 commencer commencé jouer coupe du monde ak Sénégal boobu mi nga am 17 ans ba tay mi ngi am fanweeri attaque ak juróom-ñett loolu moy mooy rêve nak gars yi nag ñoom li may supporter Manchester United dëggantaan ñaar ñu ñooy ñan ak match bi parce que ñu bari match bi la ñu Manchester United ah match bu grave final bi ñom ak ñan la won les baby boy hein ah, ñan la won gaay ak ñaar ñi ñan la parce que ñaar ñi attaque Manchester dañu garaawoon pendant ce temps Cristiano Ronaldo gars ngand di la indi du côté du Japon lan moko ko waral moy gouverneur bu ben gox fofu noonu dafa waroon réunion <laughs> bu am importance mu bàyyi fa match eh, réunion bi tayaloo ko dem sétane match amical Al Nassr Paris Saint-Germain lool nak <laughs> tax na jamono ji mi ngi waji sax démissionné ndax lool affaire d'état la indi ah, problème d'état la ngan la indi foofu pendant nak temps nag Javier Zanetti na ki nga xamné nak moy mooy gën di gis gis nii Taribo West dafa toog weeru benn weer ah, un mois ñëwul ah, entraînement gisuñu ko janvier la woon benn at mu toog un mois ñëwul ba le premier février mu yegg si ne ko entraîneur ki capitaine maa ngi jégalu c'est que ma dama doon marié te ñun suñu mariage weer li ngay am repos quoi <laughs> loolu la ko waxoon ki nag également di Fabio Luis ne moom nee na Philippe Luis nee mom dal amna am jour Aguero dafa ni bo boo yëngël ki moy Di Maria wax ko ci jabaram nee nak ñu nek match may xas Di Maria ci jabaram ba tudd jabaram Di Maria daf ma xol waxul dara man ma mujjé mer dal di koy dóor nee loolu la regretté ki nga xam ne daal moom Karim Benzema Benzema teg na 11 équipe am yéen nga ngeen xalaat ci 11 Benzema bi mom dal ñi la wax ñuy 11 onze bam donc voilà yeen ñan ngeen ci xam et qu'est-ce que vous pensez de ce 11 pour yeen 11 bi nak gagné na Ligue des Champions ak yeneen trophée li nak moy donc ballon bi ñu wara a ci ki di coupe du monde des clubs bi wara amé ci Arabie Saoudite hein, les amé donc coupe du monde des clubs ballon bi lañu ñu war a footballé ah jongante boobu nga xam nak jongante bu am solo la daaw Maroc la woon ren ji nag côté Arabie Saoudite lay amé Warren Zaïre emri mom nak ah, prolongation contrat accord amna mom ak Paris Saint-Germain pour juróomi at waye pour ñu mëne ko signer il faut que mu am fukki at ak juróom ñet manam 18 ans et lool nak wéru mars bi ñu jëm lay matal 18 ans bu ko amé rek daal di signer contrat bu 5 ans mom moo nar nekk nag la tête de gondole de cette équipe du Paris Saint-Germain Germain kii nag di euh, Anthony Martial moom nag euh, gannaaw bi nga xam contrat am day waaj jeex waa euh, aman Manchester United ci li fooye ci weewu béy nee nañ daal duñ ko renouveler contrat am ah, donc loolu yenn média yenn média wax donc day part il librement parce que depuis ba mu ay blessure daal ah, moom tey ci groupe bi nga xam ne waa Bayern Munich publié nañ ko pour Ligue des Champions yi bokku ci gaañu gaañee ko sonal moom itamit fi ne nii Bayern da ko bëgg benn place loolu na Thomas Tuchel la fa nekkoon eh, gars yi nag xiroona gars yi équipe bi ah moo sonal Barça ak Real ren jii dem moo dóor Barça. Euh, ren nak euh, Marcha mo nak ak euh, Real mo Real ñaari poñ équipe bu graaw la moo surprise bi hein, donc équipe bu mën un entraîneur tamit Michel nekk entraîneur bu ay pendant son ki xam Vincent Aboubakar moom nak Besiktas mais Besiktas dafa jël dark niente ñeenti juróomi exclure leen ah donc ñoñ nak bokk na ci moy Vincent Aboubakar nee nañ di waral nak moy incompatibilité d'humeur aux entraînements ak aussi baisse de performance mon performance bi considéré ko concerne mais Eric baye mon performance bi moom le concerne parce que mon fi na ci juróom yi nga ne dañ leen a baaraam di côté donc de euh, Besiktas Lors nag jur coow parce que ñoom ñaan yëpp war jouer coupe d'Afrique bi et je pense que ce n'est pas une bonne chose gannaaw bi nga xamee de li ci coupe d'Afrique bi euh, bëreetul lii nag gars yi 11 du week-end pour les Sénégalais on a vu que Sam Sam Soumanou mi ngi ci ki nga également mooy Sadio Mané mi ngi ci euh, donc Abdallah Sima entre autres Diop Pamatar Sar, hein, Diallo entre autres Abdou Diallo bien sûr mi ngi ci ak ki nga Qui n'a que dit également di Nicolas Jackson temps yi amul nekkul performance mais aussi dafa indi ay voilà dafa péter les plombs démb ci match contre Everton tamit dañ na gagné mais dafa xoj benn joueur ba taxoon na nag waa Premier League doon si def ab enquête di xool dañ koy daan wala duñ ko daan heureusement ba loolu amé ki nga xam mooy Pochettino moo gis dal di gaaw dem lijeenti loolu taxna na ba ñi nga xam Premier League nee nañ li def nak comme que ki wul i jaruñu koy garaawal fi mu ne ni euh, avertissement ki lay am dara du ko ci fekk pour l'instant duñ ko daan duñ ko téré dara mais attention à ki nga xam donc Nicolas Jackson gars nak nag lan ngeen gisé li nga xam donc aujourd'hui euh, niveau Nicolas Jackson par rapport ak kii bi nan ngeen gisé également actualité bi ak également le tour euh, du football européen africain incha et sénégalais su baaxee ci yàlla su bonee suñu nag